asalaamaaleykum waa Sénégal maa ngi nuyu ñëpp di nuyu am di jàmm yi di nuyu soppe yi di nuyu waa Tëngéej di nuyu waa région de Dakar bu ci yàlla fi yàlla wàcc jàmm ci réew mi di ñaanal yàlla son excellence monsieur le président de la république yàlla yàlla wàcc jàmm ci réew mi ndax bu fi jàmm amee moom bu amee jàmm rek ñoon ne am jàmm te jàmmi réew mi moom moo ñu ñor. bu jàmm dara bari ci réew mi nag yàlla na ci dakaar ëppale ndax lu yënguñu ñu ne la te bu ci Dakar dara ëppale it yàlla na ci Tëngéej ëppale waaw loolu de maa ngi koy ñaan yàlla. ñu dooree waxtaan bi ak lu jëm ci remaniement bi nga xam ne am na te ne am nga ci ay ay ay kàddu. président mu ngi koy waajal waaye xam nga euh, ñun dafa am lu ñu intéressé ñun waa Tëngéej seen euh, émission bi passé maa ngi lay xamal ni la Tëngéej desalatul dara président de la république. Macky Sall tënkee desalatu ko dara ndax boo xoolee élection présidentielle vingt cinq pour cent la fi gagné 2019 mu am quinze pour cent bu demee ba ñàkk élection locale ñàkk législative yi tënkee ñi mu fi fan ñoo ko liggéeyalul xam nga booy dëgg kenn du ko raay te nit ki boo ko bëggee da nga koy wax dëgg te man président de la république laa àndal jamono bi may wax ak yow nii dama ko bëgg ndax ànd ak moom te dama ko yërëm dama ko yërëm. dafa am ci moom yërmande daal parce que dafa am yéene ci réew mi ba pare te amul ay liggéeykat yu baax bu ma nee liggéeykat yu baax nag mooy maanaam dafa fan ay nit tëngee jox leen ay taraanga mais dañ ko bokkantewul ak doomu aadama yi ñu koy ñaan nag ci remaniement bi fekkante ni remaniement dina am ci liñ dégg ñun ci njaw njor gin am mu dimbali ci doomu tëngee ji man soxlaa ma ko ma fal bàyyi na bàyyi xel xale yi nga xamante ne ñoo nekk tëngee rayante seen dund képp ngir moom am na xale yoo xam ne képp président xamul te pourtant ñi nga xamante ne tey jii ñoom la président tey jël ndox domba tànk yi jox leen ko mooy ay Samba Sy Ismaïla Madior Souleymane doy ay jaaykatu ginaar bi kii Seydou Diouf député boobu mais ñooyu noonu euh, trang yi mu leen jox nii mais ñoom liggéeyuñ ko kenn ku ci ne ci ñoom am nga ay booy yoo xamante ni xam nga ni booy yi ñoo nekk ci dëkk bi ñoom ñoo am mbooloo nekk ci biir quartier yi moom booy yu tëngee ci bi laa bëgg ñu yeewu mooy xale yi nga xamante ne jël seen i mbooloo dajale seen i mbooloo ba am ay mbooloo benn ministre jóge fa la ñëw nax leen bu président di ñëw ñu jël seen i ay t-shirt jox ay jox leen ay tisi ñu ñaw ko jox ñooñu ñooñu dem indil leen seen i mbooloo bu ñu jógee taxaw mbooloo mi jóg président yaakaar ne ministre boobu moo am mbooloo fekk ministre boobu amul mbooloo jeunesse bi ñoo am mbooloo moo tax dañuy ñaan yàlla jeunesse bi yàlla na ngeen yeewu ba loolu ngeen arrêté ko pour président xam ne ñi fi salfal amuñu mbooloo ñuy ñaan yàlla ministre remaniement bu fekkee dana am nañu président dimbali ba changé nu bu nu mënoon changer mais nañu jox ay possibilité ministère dëkk bi fii am na si ñoo xamante ni nii ñun est ce que xam nga tëngeej bi Kora Fall deewee Mbaye Jacques Diop dee Ndiawar Touré dee Maba Yaa Mara Dieye Tall ñoom ñëpp gaañu ci la nga am ay maire ak ay nit yu def social maanaam social bi tax ñu naan social pire ñoo ñoo ko fi doon def la Dior Mbaye Jacques Diop Kora Fall Ndiawar Touré Badara Mama Yacine bi fi ñu jógee boo fi génnee Mamadou Mbengue bu lew na génn fi Père Mboup génn fi yónni càmm mooy femme bi dëkk fii ci ginnaaw est-ce que xam nga ni koor gi passé dafa jël ay ay ay ay ay kii ni ko ci ay barket ak yu bari génn ko di ko wër di ko joxee te xoolal publié wu ko di fëkk ay kër di leen jox ay saako ceeb ci lu ma dégg moom yónni ay duut ñes ma nga Amérique mais dégg naa man damay xoolal damay am ay preuve doogu tudd sa tur parce que ñi ma la limal ñëpp amul kenn ci ñoom koo xamante ni yaakaar naa ci yow un franc maa ngi sant yàlla boo ñëwee sa sama kër gi di nga xam ni kii utul xaalis mais dégg dafa neex ñu wax leen pour ñu roy nit ñi ñu fi nekkoon tëngéej nga xam ne ñoo nekkoon patrimoine u tëngéej daan def lu baax ñu ngi fi ba léegi mais amuñu domba tànk kon président dafa war a jël ay nit buy fal na jël ay nit na jël abay yabal renseignement généraux ñu ñëw tëngeej xoolal ñu ñi nga xamante ni ñoom ñoo ñoom ñoo dàq def social ci tëngeej te amuñu benn ndomba tànk nag ma wax la ko tey dañ leen di chantage dañuy gis fii un ministre buy chantage nit bëgg yaakaar ne dafa am problème ci dundam di ko chantage nankaat boo ñëw ànd ak man ma def lii fu mu am man ñu may jàmm liggéeyaluñu dara président de la république fii Tëngéej kenn amu ci mbooloo ci ñoom billahi barke Cheikhouna Ahmadoul Khadim darajey Serigne Bara Mbacké su fekkee Macky Sall ministre ngii la yaakaar Tëngéej amuñu mbooloo su dee Ismaïla peut xam-xam la koy doyee am na lu ko yaakaaree ci la koy doyee loolu moom ñoom ñaar la suñu yoon dewu ñooñu amuñu nit te billahi wallahi wa taala su dee fi bàyyi xanaa moom Macky Sall mu dugg ci parce que nag Tëngéej am na lu ñu manqué amuñu amul assainissement bu baax man ngi koy waxaat diggante Rufisque 2 ba jor Diorga amul amul assainissement côté bu fa am assainissement rek do assainissement bu baax kon nak nañu président dimbali Tëngéej dafa am lu mu soxlaa buy fal na duggal renseignement généraux ñu wax ko ñan ño fi nek dàq def social mu jël leen. ba tay ci social bobu amna ay maire yo xam te yow xam nga leen ñuy dindi ci seen poste bopp di di dimbali jamm Aline Mar. Aline Mar tëngéej ba tëngéej daj maire fi nek yep mo ci gën man mako wax Aline Mar maire bu ko dàq def social waccu tëngéej guddin tol nii Mar day def ba def lo Mar boko jage lo yor mu jël ko joxe ko barka dem rek ci mujjee fi sama quartier bi ay xalé yu bëgg jang am ay problème jang mu jël len en charge jappalé len ci mairem may leen bourse Mar maire bi bourse bi yëpp naa ay bourse la koy ak social ay nit yu feebar mu dimbali leen taxaw leen loolu la ma loolu la Macky Sall manqué Tëngéej bu demoon élection présidentielle maar da koy gañal fii problème bi mooy est est ak nord parce que amul amul amul daal boo bëggee dégg-dégg daal Macky nañu dimbali falal no ñun soxlaa. ci ci côté Tëngéej fii ñan nga jàpp ne ñoo nekk à la hauteur pour pour ñu tabb leen mais tey jii ku mel ni yoonu jàpp ku mel ni Doudou Niass yoon dem na ba pale ànd ak délégation bi ñoom Souleymane Ndoye ñoom ñëpp ñu dem ba pale ñu jël micro ba ñuy jógee fii dëngéej dañ ko wax ne ko bu ñu demee yaay wax mu dem ba pale gaa yi xañ ko micro puusal boobu loolu est-ce que sañ ñu ngi ko def Doudou Maïssa day eh, ku ko ko def xam est que sañ ñu ngi ko def ku ko ko def xam bu ñu def dañuy tànn ñi ay jigéen yoo xam dañoo ko war a ragal mais président bu jëloon tey ku mel ni yónni Doudou Maïssa Ismaïla Diagne barke Cheikh Ahmadou Bamba yàlla mën na ko may lu mu yaakaaru tëggi mais ñi mu fal nii bu leen yaakaaree tëggi jurem de man maay wax ak yow de Sénégal ba Sénégal daj meilleur maire yi ne Sénégal fii man maa la koy wax ñaari maire ci li ma man muy meeru Kër Moussa ñu koy wax Momar Samb. meeru moom tamit dafa yëngatu lu bari. meeru Kër Moussa social maa fa xoola eh maa dem ca mairie ba di toppatoo samay kayiti kër. barke Serigne Saliou ci buntu meer bi ma fekk fa ay nit dañuy wax ci monde social ci weeru koor gi dama rus sama benn cousine bu jigéen gaañu ma dem fa di jaare ji am ku ma doon waxtaanal foofu di waxtaanal boo jógee si question ci affaire meeru Kër Moussa ci li ma dégg ci buntu meer bi li muy def ci social moom Momar Samb boobu noonu ñu ne ma am na ci dëkk bi foo xamante ni day gas ay teen di bayee tabax ak case du tout petit jàppale askan wi xale yi bëggul sax xale buy fo nee nañ weeru koor gi passé li mu ci financé ci social ëpp na 30 millions ñu tëggee dañ ko am fii aliment rek boo fi def social boo fi gisee 10 millions ñu ne yokk nañ ko fi ay ay social fii par exemple ci weeru koor ku dul aliment defu ko fi ñu fi Macky Sall indi kenn defu fi dara tëggee ñi ko fi nekkal ñëpp kenn ku ci ne ko wor te wor gi feeñagul ci kanam lay kon Macky na gëstu tëggee jël ndaw ñi mu fal leen bàyyi leen ñu nekk ay homme de base nekk sur le terrain nekk ay combattant parce que fi mu jëm nii ma gis nii bu amul combattant vrai day daanu daanu koy xañ dañ koy xañ tëngeet te buñ ko xañee tëngeet kenn du ko kenn mënatu ko ko dablu tëngeet dañ bëgg Macky Sall mais Macky Sall na leen récompensé mu jël doomu tëngeet ji mu fal leen ñi xam ne ñoo gëm a tëngeet et keneen ki ana ministre ne fii Samba Sy mais moom boo demee seete enseignant fa mu dëkk këram koñ bi foofu xamuñu ko du génn mais sëñ bi loolu danger la tan lan lañ ko falee affaire de quota quota ministère quota ministère moo fiy jeex Macky Sall lañ fal ñun Macky Sall lañ bëgg ñu ay ay PIT faluñu ay ay Moustapha Niasse faluñu faluñu kenn ay AFP ñu fi kenn Macky Sall lañ fal mu lañ bëgg te suñu carte suuf moom lañ koy joxaat kon nag nañu delloo ñun luñ bëgg. mais est-ce que ñi wan ginnaaw social jàpp nga ne xam nañ njëriñu social ci politique. mais social muy politique sëñ Fallou danaan wax gars yi neen te danaan wax Senghor ni joxel xaalis bi nit ñi maa nga joxe joxel xaalis bi téye nit ñi maa nga sa xaalis bàyyi nit dégg nga wax boobu da joxe xaalis bu téye nit ñi mbaa nga téye xaalis bi te bàyyi nit ñi Sénégal dafa métti mënoo jox ñëpp liggéey mais dafay laaj nga dimbali askan wi bu kër gu mënul am ñetti nit yu liggéey kër gu ne benn nit am su liggéey Macky Sall côté boobu sax réussir na ko mais li am solo mooy tëngeej ñoom tëngeej laa wax dafa war a am maire yu mel ni Aline Mar wala maire bu mel ni Momar moo kii Momar Samba la xaw ma Momar Cissé Momar Cissé nek nek fele ni ko soxate keur moussa moy maire keur moussa bi momar sis japp nga social mën na apporter lu bare bare pour mais mais maire keur moussa bi ñata mandat la dañuy waxtan ku juddu tay buñ la déclarer may la keur keur koku di nga gagner keur moussa kenn du ko gagner keur moussa 50 kenn du ko fa gagner kenn du gagner keur moussa dafa social di deuk jël dëkk bi jël xalé yi jubul lañu jangi taxaw leen dafa lañu nek mais señ bi ñu loolu lañu manké Macky Sall dafa jël teraanga yi ko ñoo xamante ne dañ ko yóbbu seen i kër def seen i tëj ko ci ràmp toog jàpp seen njàmbur defaluñ fi kenn dara est-ce que président xam na li xew mais maa koy wax li xew man wax li xew man maay ki nga xamante ni ab ministre yoru sama dépense député yoru sama dépense li may dundee maa koy liggéey te damay wax dëgg boo waxul dëgg du ko dimbali Macky Sall ku mel ni man maay dimbali Macky Sall man maa koy wax dëgg wax ko ni ko lii xew te gi lii la renseignement yi luñ la andi ci renseignement te waxuñu ne lii ma la wax wallaahi la asim élection présidentielle sama wax na Jali Moussa da ngay wax dajeeg moom